yaa ko yoreel fay ko. loolu c'est clair. donc dem nañ ci yoon moom na wax ak borom këram ki ki yor kii la table servie la. Mhm. bëri bëri xaalis mu mu mu fay. Mhm. xaalis bi rek mu mu am nañ ci bës ba pare wala ku ku góor ki am na ci bës ba pare. parfois bon on va marier on va se marier à une femme buy génn télé wala mm-hmm, série mm-hmm. yooyu noonu pour am buzz yooyu mën na nekk ay ah, délire nit quoi. Amina Poté de bay moom Amina Poté rek bayre la toll nii moom am na ci buzz ba pare marqué ci réew mi nag. Mm, macha allah mën li muy def ba pare ñëpp bëgg ba liggéey jotee dafa liggéey. Mm-hmm. ba animation joxe jotee daf cee def. ba pare lu ma lu ma neex ci moom même bu dee day tasaat day génn ci sëy dugg ci sëy non sëykat doo ko dégg ci lu ñàkk fayda nit ku am diine la nit ku am lislaam la doo ko dégg ci dara lu ñàkk fayda kon moo lay wan nit ku bëgg sëy la bëgg na hmm, bëgg na sëy xëy na yàlla moo ko hmm, booleegul te xëy na kii tamit ñi ngi ñaan yàlla suñu borom hmm. mu doon jëkkër ju mën ju gën ci moom boo xam ne mooy nekk mu jub sëyam amiin alors on va terminer en beauté hein donc li benn ponk la boo xam ne kenn rek laa ciy laaj muy marabout du peuple maam Ndiaye Savon dafa jotee ci ak Zale Mbaye wala man pour man juboo woon nañu de. ah man de ma jaaxal dégg naa dégg naa daal moom ay gaaruwaale de. gaaruwaale ah. ah doy na war man de affaire jaaxal na ma kaa bi. góor jigéen bi ñu jàppoon kaw wax daal mi ngi taal tàkk rajo yi di wax rek di tal tali xaw ma lu xew. xaw ma xaalis bee jeex un million yi est ce que jeexut. ki ñu joxoon un million. ah maam Ndiaye Savon may woon na fi un million de. ah bon. ah oui na fi un million. ne ko demal liggéey mu dem jënd ko Sambar Sambar. Euh, kii chambre à coucher hmm. chambre ah, hmm. ci beneen jàkkatu xeesal. waaw ak ay ngeganaayam ak ay drap lal ko di live. tey hmm. un million pour ubbi magasin moo tax. Ah? moom la ko jëndee woon de kii. Dibaas ah. yi waaw xam nga maam moom daa tabe day may rek gisoo waa ji nekk Allemagne doon ko ñaan iPhone 15. ko kan la mm. moo doon ñaan iPhone 15. rek mm. Adamo dina ñaan ba da arrêté. barke alxuraanu moo ko ñaan ba man jaay xale yi di. Mm. xale yi kay looloo leen jaaxal maanaam munoo mën a nekkee ba Allemagne di ñaan iPhone 15 kay moo kaf ah, ah, yi lan. ay yow foo ne. réew mi xam nga réew mi léegi daa déet non réew mi léegi daa soppeeku boo liggéey doo am. soo moo tax sawaay mi ko kal ci sëy yi Kapo yi la nekk. Zey di Zey ñu koy may karo. Kapo liggéeyul. déet Kapo daa xëy xëyut gontut. plateforme bi mu yor nag plateforme bi mi ngi généré. non ak publicité yi xanaa. waaw waaw fay xaw ma lan nu ñuy fay seen nu ah, ñuy fay lan. seen plateforme yi li ñu leen ciy fay. ah waaw. mais kàpp hmm? cuisinier la daa mën a togg sax naa fay nga naan. Hmm. yow tamit doo ma bàyyi. songu nga ko de. kàpp affronté nga ko de. mënut togg. salaamaaleykum gars yi amul dégg naa daal jabar ji ñu ne dafa tas xaw ma nga. ah loolu laa dégg de. dégg naa ñu ne jabar ji dem na de. dégg naa ñu ne jabar ji dem na. jabar ji tasul kon jabar ji moo dul toog kon xëy na waa Badara yow tamit nag. yow yaa ngi yow. yéen a ngi doo bàyyi doo bàyyi poste ko ba sa jabar wala jëm naa sa jabar. jabar mu joxe naa engagé te nee la engagé ah. ma. ah lu mu la wax ñaari bàyyi ci xel de. comme engagé taxaw na la jabar ji dem na. wala jabar ji du toog <laughs> man loolu laa gën a. engagé moom ne ah, ko ah, <laughs> nag yaa ma tooñ danaa taf sa yaay. <laughs> xam nga go moom nga yaakaar naa ku mu dem ba jox la mooy ay xam-xamam jeex dëgg yàlla te ca moom sax bu loolu aada moo jabaram dafa fay sax dina fexe ba jëliwaat jabar bi wan ko askan bi nee na ko amoore nee na Faye xaw la <laughs> def na vidéo na moom man yeewu naa sama jabar gi naan dafa tas mu ngi nii la bëgg preuve bi xam nga aaduma moo takk jotee daf cee bàyyi sénégalais parce que xam nga la lay bañ ku ko génneel le motif boo liggéey mu ne la coppati naa sa jabar nee na ma xale bu ndaw laa takk xale bu rafet sax du dëgg xale bu rafet la jël takk ko teg ko ci wetam xam nga la lay bañ takk jabar joo xam ne bu ëllëgee ñu naan <laughs> jabaru Adamo. dégg <laughs> nga dégg nga man kii yoon naa caa. Mm, mm. jàppoon naa caa bañ na ba takkul sénégalais. sénégalais loolu xëy na la sax rek am na ci. xam nga sëy nag moom yaa dee wu yaa dee baa mun naa am sax amoon nañu problème tuuti. man de bëgguma ku ma yàq sama <laughs> ñaan gii nga xam ne rek commencé ku ma man li ma la bëgg a laaj gaf wax ma lu ñaaw bëgg a mm. di nga tëdd di nga tëdd mu filmé la di nga nelaw mu filmé la ko def ko preuve tee ko tas di xaar nga tas doon tas moom naan la salaamal boo tasee di nga fekk sa vidéo boo xam ne ngam la lay def tee ko doon tas de mariage à vie téye jigéen nag. kanti genre anam mooy góor yu mën a téye jigéen la ñuy doon li ñuy wane li ñuy li ñuy wane nii. xam naa daal moom bu la bu la ko amoore genn jabar ji ñëw gis ko. non wane na amoore. xam naa ne moom romantique na. wane na amoore wax dëgg yàlla ni ko xale ji waxee noonu romantique ak mm. a moom day ree rek xam naa ne moom tubaarkàlla. Mm. dóorul fayul dara ñu ko jiiñ jaaykatu yàmp jabaru aaduma bii xam ngeen ne ni kii publicité la ku baax la. xale la sax te xale la xamul loolu. engagé nag moom ku jóg mu tooñ la defal la revue de presse. <laughs> dama lu ma ci jaaxal ni ma gisee aadama génn wax engagé engagé te naan sénégalais yi. wax leen yaa ngi te da doon génn rek teg ñaar salaamaaleykum lay <laughs> yërëm engagé. mais ko xam naa sa photo yaay te dinaa wax di sa yaay doon dundee. Euh. kon nag nañu bàyyi Adamo ak sëyam bañ na ko ba tàkkul sénégalais. bëggul ba léegi kenn na ko sa jabar ji coppati woon naa ko ndax génneekatu lu mu tif <laughs> doo takk ko yore lu mu tif bañ na ko ba marocainam la xool xale bu baax takk ko heure buñ ko sosalee même bu doon jabar ja daa fay sax Adamo dañ def ay millions dem jënd ko ndax maa la ko wax parce que sénégalais ñaan da uñee na Adamo jabar ja daa fay daa fay ah. kon fexe na ba walaat ñu jabaram kon nañ ko ñaanal nañ ñaanal nañ ñaanal boos mm. moom li daa bëri daa bëri pexe de waaye. waaw ah, kay daa bëri nañ ñaanal boos rek waaye xam naa ne xam naa ne pexe mi moom. bàyyi pexe mi moom moo koy tëmam maanaam ndax ñu bari dañ ne aadamoo mënut yëf yi baaxul. loolu la gars yi wax de parce que jabar ji ëmbut ba léegi nii <laughs> feebar. pas état de grossesse. noos noos am na noos bu yàgg. xaw ma lan noos. déet lune de miel bee yàgg. ah man ah, kay for naa ko ci wéy béy <laughs> kenn du la tax di ma taxaale ma ah ma sëñ Bada ragalul loolu. non bi lañ koy yeggale. waaw waaw loolu foofu lañ koy yeggale. waaye est-ce xam nga pare saa yi boos mën na wax ak jabar ji ñu ñu conserver seen ni ba ci kanam. jabar ji dem ay. profité profité ba ci kanam profité benn un an avant maternité. waaye dama xam ne bu doon xale yi ñooñu la bees tamit mën na jógaale. Hmm. voilà. mën na jógaale de vraiment loolu jar naa na pour ñoom ñaar pare nañ pour na ah maam Ndiaye Savon bi nu mu tuddati. damaa xam ne maam Ndiaye Savon war naa am goro war eh, naa am. kii turandoo waaye boobu léegi go. kàppo mënut a yëngal dara. est-ce que du kàppo looloo taxoon mu doon nëbb jabar ji dama yaakaar dafa nekk en état daal. non nañ bàyyi soxor di tax sëy sëyu àll. dëgg yàlla nekk suñu biir la ñuy tasante mm-hmm. bis bu nekk ñun. rafet na ndax jabaram jongo ma mel na lu mu war a mel bala mm-hmm. moo fi dàq xale yëpp nag influenceur yëpp moo leen dàq jabar. ah nga gis de. Bala am sa bos. waaw ah, sama bos du ko wane. Ah. damay bañ ñu waxal ma ay bal. loolu la waxal ay bal. sénégalais yi xam lépp la ñuy damaa ah, xam sénégalais rek. donc maa ngi leen tàggatoo merci Ami Guèye waaw Bamba maa ngi benn programme ak le 12 octobre fa la ci Ravin maa tëgg Ibra Naajo xam nga léegi dama am logo Kéemaan Events ah maanaam léegi ah léegi damay liggéey damaa changé bàyyi naa yëpp damaa taxawal sama entreprise bu bopp Kéemaan Events mooy logo bi bàyyi ñu kii bi transaction yooyu yëpp <laughs> jël part <laughs> bàyyi ba ñu ne da liggéey liggéey moo gën toog muy dox amatul. Kéemaan Events ah waaw comme toog muy dox amatul ma créé Kéemaan Events. Mm. léegi damay dëgg Naajo. bon fay naa ko xaalis bu bëri nag ay millions yu bëri wax dëgg yàlla jox naa ko avance am euh, waxtaan teeg Medoune ménagère am DJ Kalsi sama ménagère la moom a ciy jàppale bi nekk RFM. Mm-hmm. ak Jazz euh, Pro donc le 12 octobre incha allah rabi laa koy tëgg. donc maa ngi koy yëgal sénégal yëpp na ci ñëpp jàpp. waaw incha allah waaw waaw.